mooy mooy mooy suñu euh, institution yi suñu exécutif war nañ ko laalaat parce que bari na coow suñu législatif <laughs> war nañ ko laalaat bari na coow y a beaucoup d'informel donc institution yi essentielles yi suñu presse média war nañ ko laalaat bari na coow <laughs> coow li ñu ngi koy dégg suuf <laughs> foncier bari na problème war nañ ko laalaat xoolaat ko littoral bi xam nga ñu ngi ñu ñoom ñu ngi saytu sax àggalagul euh, li ñuy wax tamit souveraineté alimentaire war nañ ko war nañ ko xool parce que lu am solo la ba pare nag li may wax aussi mooy euh, li ñu wax euh, suñu transformation ñun extraction rek la def dem dem ci suuf rek daal di indi rek génne rek brut jaay jaay ko ñun may jël or bi da ngay jël ñu ne Afrique de l'Ouest 40 pour cent or bi kenn xamul fu mu dugg boo demee Dubaay nga ne damay dem jëndi or or or Afrique de l'Ouest nga jënd ñun ñu ngi nii bugg nañu tey am suñu euh, kii bu bees euh, mone bu bees mais or bi dafa am solo nga am monnaie bi stocké ko am na ñoo xam ne sax pour défendre seen monnaie léegi or Afrique de l'Ouest la ñuy jël mais nga jël or bi noonu brut nga yor di yóbbu jaay te fii am na ñoo xam ne dañu tëgg or est-ce dañ ko gis yooyu yëpp dañu war a xalaataat lépp loo xam ne suñu matière première la te nga xam ne moom la colon yi daan def nga xam ne extraire la ñu daan jël rek di yóbbu di jaay ma nga xam ne même ñin ñi sax dañ ko doon ex dañ leen di extraire leen jël di yóbbu di jaay ñun loolu nag la ñu war a rompre ñu nag commencé nag dans la transformation ñu ngi koy wax rek mais ba tey defuñ ko waaw président dafa ne ah damay tabax ay euh, kii chemin de fer laa bëgg ma ne ma c'est très bien mais nañu defar train yi Sénégal waaw nañ defar avion yi Sénégal mën nañ ko am nañ polytechnicien am nañ ay ouvriers spécialisés yu baax ça veut dire que ñu am suñu rêve boo xam ne dañuy dañuy dañuy développer moo tax ma ne Sénégal bu bees du benn parti moo koy defar du opposition du pouvoir sénégalais yëpp ñoom ak seen xalaat ak seen man-man ak seen ressource parce que ressource bi ëpp te gën a baax ci Sénégal ci man mooy nit ki doomu aadama bi c'est que du crise man loolu amul benn njëriñ coow li amul benn njëriñ. constaté nañ ne lii nga xam ne mooy règlement intérieur assemblée nationale teguwul ci yoon nañ ko teg ci yoon mu jeex dañ ko teg ci yoon mu jeex coow du jib dañ ko tegee ci yoon mu dellu si ci yoon parce que bind nañu président de l'Assemblée nationale ñaari nit ñaari député bind nañ ko kii Guy Marius Sagna bind na ko kii di aussi Mamadou Lamine jàll bind na ko ni ko bi kii di présenté euh, déclaration de commission de politique générale ñu ko règlement bi ah premier ministre nekkatul ci biir kii bi génne nañ ko depuis 2019 donc léegi dangay ngay ni am na loo xam ne doxul ci réglement intérieur yéen yéenay bind loi yi nga xam ne ñun ci la ñuy dox yéen a war a jëkk di dox ci yoon waaw gis nga li ñuy wax la loi moom foofu la foofu kookoo indi avènement wu démocratie waaw indi avènement wu démocratie Euh, na bàyyi xamb li nga xam ne wax na ne da koy def jaru ko woon ma gis-gis. tant que kii foofu ci dëggam la ne vraiment ci dëggam la ne ne tant que corrigé wuñ ko du ko def ci dëggam la ne kon nag nañ ko corrigé mu jeex waaw te xam nga bu fekkee ne da nga dañu jóge ci ay coow yu bari man li may digal euh, gouvernement ñoom ci seen bopp bu ñu indi coow lépp loo xam ne mun nañ ko def ba nga xam ne te du am ànd ak coow rek baax na xam nga euh, ñaari affaire la articulé chef de gouvernement et leader de parti <laughs> ñaari affaire yooyu nag foog nga def synthèse bi sinon da ngay am ay conflit d'intérêt <laughs> non non baax bàyyi door yooyu tamit sur le plan structurel day indi problème et puis aussi wax naa ko ah ça veut dire que moom dafa am une surcharge de légitimité légitimité surcharge bi impact bi muy am day feeñ bés bu jot ci ci muy ni muy doxale ni muy waxe ak ni muy ak lépp loolu tamit il faut ñu jël ko en compte. donc communication man waxuma ni communication baax na wax na waxuma ni baaxul li may wax daal mooy li may constater ci ay pathologie dama koy génne ni attention c'est pas sa personne. ça veut dire que su fekkee ni da def analyse di def ko di di personnaliser ci affaire nit ñi da ngay man bugguma loolu ma ko def mais damay xool structure yi nga xam ne ñoo feebar ak nan la ñuy juree safaar ma génn ko. kooku moom naa ko bàyyi euh, yéen ngeen wax ngeen wax ngeen wax wax yooyu. <laughs>